Hello, hello la famille, j'espère que vous allez bien. C'est Mia Guissé. Je vous donne rendez-vous le samedi 16 décembre, Inch'Allah, au Monument de la Renaissance. Venez nombreux, un show inédit et promis. On fera du La Vie est Belle, on fera du GLP, ko tàggee nak tàggee nga lu ne fan lay xewé fële ca monument de la renaissance samedi 16 décembre da ngeen bëgg a gis spectacle da ngeen bëgg a gis sañse yu da ngeen bëgg a gis dégagement swag bu graaw ñëw leen le 16 décembre incha ko kenn tardé. la vie est belle. toujours dans votre scandale du jour Coura Macky dafa yëkkati ay kàddu. jëmale ko ci Ousmane Sonko ak ki nga xamante ne mooy Jomaay Faye xam ngeen ne nag kuréel ma ki musul may dara Ousmane Sonko moom Sonko seen waxtaan musul neex musul wax loo xamante ne jàmm la jëmale ko ci Sonko maam day sànni xeer rek Sonko donc waxati na demale ko ci Sonko ak ki nga xamante ne moom la Sonko tànn di euh, Bachir Jomaay fay ñu seetaani vidéo bi ñëwaat. man ci sama philosophie ak li may xalaat. Mm-hmm. moy dafa melni senegal mhm. nit ñi dañuy adina bi fay avancer ñun ñi bakam ñi arrière ko ñi ñi arrière. Ousmane Sonko bokul te du bok mais waxna ki nga xamanteni ni basirou Bassirou fay prisonnier la bokut mais mama mën na bokk. ah non non non non non senegal ya kay paranel. mais sénégalais yi. waaw di di mooy sénégalais yi ma lay wax bañkat lañu ay katu Sénégal. mais Sénégal ci loxo yu wóor lañ koy teg du fawukaay de golo gu jot nag génnee sa trente millions ni da ngay dem déposer mais Sénégal duñ ko fooye de yow hmm. Sénégal ay ay Birame Souleye Diop ay El Malick ay Guy Marius Sagna ay ñooñu naka la doomu aadama di leen xoolee benn hmm. fal nañ leen indi leen ci assemblée nationale bi premier jour sénégalais yëpp bafu sénégalais yëpp regretté d'accord guleet depuis mille neuf cent soixante Lamine Kouré Gueye mhm. ñoom Senghor mhm. ñoom ñoom ñoom wal wal jooja Njaay mais ñu ris ñoo ñu jaar ci ensemble bi ñu gis benn golo ay golo yu ñëw yéeg ci kaw ay taabal loolu yeewul Sénégalais yi nii ñi waruñu leen a joxum réew mhm. réew dañuy xool ñi ngi koy jox de du Sénégal doonga ngay doon président de ci monde entier ngay doon président nga neex a présent ki moo ko yëkkati jëmale ko ci Ousmane Sonko ak Bachir Diomaye Faye ak ci sénégalais yi ndax nag nee na sénégalais yi dafa yaakaar ni dañoo bañ Sénégal parce que nag dafa yaakaar ni ñun bi aduna di avancer ñun dañoo bëgg di reculer di dem ginaaw ndax nak dem ginaaw weesuwul di di naan dañuy parrainer ki nga xamantane ne la Sonko tànn ndax Bassirou Diomaye fay moy Sonko ndax nak sénégalais bu ñu faté ni li ñu Ousmane Sonko la plupart de ces accusations momblo lañu jappé ki nga xamante moy mooy Bassirou fay té mu nekk prison ken xamagul kañ lay genn donc est-ce que du lëre Sénégal est-ce que du tardel sénégalais yi motax ñu war ne nañ dem parrainer ki nga xamante moy mooy fay donc kii di Kouramaki wax na wax yoo xamante ne jëmale na ko ci Bassirou Diomaye Faye ak ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko waaye di dalaat ci kaw population sénégalais yi ne sénégalais yi nañuy yeewu te bàyyi bañ Sénégal parce que bañ senegal mooy dem di pare ne parrainer ki nga xamante ne mooy Sonko wala ki nga xamante ne mooy Bassirou Diomaye Faye ñoo ko déggandoo. Hello, hello la famille, j'espère que vous allez bien. C'est Mia Guissé. Je vous donne rendez-vous le samedi 16 décembre, Inch'Allah, au Monument de la Renaissance. Venez nombreux, un show inédit et promis. On fera du La Vie est Belle, on fera du GLP, dinañ yëngal yëngal du rëgët rëgët ah. ku ko tàggee nag lu ne. fan lay xewee Monument de la Renaissance samedi 16 décembre. da ngeen bëgg spectacle, da ngeen bëgg a gis sañse da ngeen dégagement, swag bu graaw. ñëw le 16 décembre, Inch'Allah. con Ken Tarek. La vie è bella, <laughs>